réew mi quotidien indi leerlu ci grève de la faim bi nga xamante ne moom lañ jiital Pastef nekkee lu muy xamle mooy état ci boppam toogul banque loxoom di seetaan ba Ousmane Sonko daal di ñàkk bakkanam ci biir prison ci biir réew mi quotidien professeur Ismaïla Madior Fall di xamle ni moom Ousmane Sonko dakkal na sax grève bi ci boppam ci biir sup samedi gi le quotidien le quotidien noonee la ko fësale muy xam ne ni kon grève bi ak coowal Pape Alé Niang ci boppam jeex na jamono ji ndax Ismaïla Madior Fall li mu ci indi ni ay leerlu bokk na ci ne Ousmane Sonko ci boppam feebarul benn yoon bu ñu sukkandekoo ci kàddug Ismaïla Madior Fall ba tey ci fa nee ñu usmaan Ousmane Sonko di def mënuñu ko sax woowee gréewu xiifal ndax gréew wi ci boppam du ab bis lëm la koy def te sax dakkal na ko ba noppi daanaka samedi ak léegi moo ne de ci biir l'exclusif ba tey ay jegeñaale Ousmane Sonko ci boppam nee ñu état de santé am fu mu toll nii dafa taggatémbe wér-gu-yaramu Ousmane Sonko weesu na sax taggatémbe bu ñu sukkandekoo ci avocat am bi di maître Ciré Clédor Ly ci L'As Quotidien wax na ni ndax dafay jëm rek nëb nëbal yëf yi Madior Fall amul lenn li mu nëb nëbal ci Sud Quotidien ndax nee ñu génn na wax ci lépp li nga xamante ne moo ñeel actualité bokk na ci rawatina kaw Ousmane Sonko mi nga xamante ne àdduna ci ci xiifal bi ba wax sax ci li nga xamante ne moom mooy contimence bi mu jàpp ni ba tey mu ngi fi Ismaïla Madior Fall mel ni kuy weejee ci source a ndax nee na samedi gi wees moom Ousmane Sonko ci boppam jot naa ndekki ba suur foofee ca prison bu Sébikotane gi mu nekk te wér-gu-yaramam amul lenn luñ ci tiit jot naa sax paju ci biir prison bi ci boppam wuute ak li nit ñi di xamle ci réseau sociaux yi ci source a ba tey ministre de la justice wax na tamit ci beneen détenu di Pape Alé mi nga xamante ne leeral na ni ba tey moom dafa lank ndaare ne du lekk du naan te benn docteur du ko laal moo tax yéenekaay yu bëri di déggal ni tamit moom taskatu xibaar bi ci anam yu doy waar la nekkee ca prison ki ne kon prison ba génn gaaw gaaw mu ngi ci xët bu njëkk L'As Quotidien Juan Branco lay wuyoo mbiram moom daanaka mbiru yàkkamti la suñ naataango yu las jàpp ni état bu Sénégal moom la ñu def dossier am dossier Juan Branco gaaw lool ba jaaxal lool waa Vox Populi gis ni ab coup de dëgg la bi nga xamante ne moom la nemmee nemmeeku ci yëf yi ndax diggante ba ñu koy teg loxo ba ñu koy teewlu ba sax di ko bàyyi ñaari fan képp la daal di def yéenekaay bi jàpp ni li moom weesu na sax ab gàcce ndax yi nu mu gaaw ba jaaxal askan wi gaawaayub dossier bi moo tax ba bis bi la jour jàpp ni ab dossier fast dëgg la ci biir yéenekaay bi ñu ñuy xamal ni avocat bi ci boppam mujj nañ ko delloo ci réew France bi mu jógee waaye ba ba ñu koy bàyyi suñu naataango yi di xam ne ni moom Juan Branco dafa ne pat pataaral ne du tontu ki nga xamante ne mooy procureur de la République diggante ba muy dugg Sénégal ba ba muy génn yéenekaay bi di yor yor dafa jàpp ni mbirub Juan Branco moom ay caaxaan képp la yéenekaay bi jàpp ni li ko waral bokk na ci plainte bi nga xamante ne moom avocat français bi ci boppam daf ko ngàll ci ndoddub Sénégal muy daf leen a tere nelaw leneen li bokk na ci métier d'avocat bi nga xamante ne moom la Branco di def te muy liggéey boo xamante ne dafa jéggi ay frontière moo tax it mujj gi enquête yéeni kay di xam ne ni Dakar ci boppam moo jël safara bi mu tegoon ci loxoom daal di koy delloo Paris le témoin yéeni kay noonee la ko jàngatee ndax dafa jàpp ni moom Branco weesu na saxab safara ci loxol nguurub Sénégal moo waral procédure fast bi nga xamante ne moom la am ba ñu koy bàyyi delloo ko ca France bu mu bawoo libération mi ko duppee ko ca Paris te ci kanamu atekat bi moom avocat bi pat pataaral la daal maye ba mu génnee dañu ko mujj def sous contrôle judiciaire mbiru Juan Branco ni mu gaawee ak kàddu yu ñu ci dégg jaaxal na ñu bëri waaye kaddu yooyu le témoin yéene kay dafa jàpp ni moom Ismaïla Madior Fall ci boppam wax na ba géex waaye yeyul kenn ci li nga xamante ne moom la indi ni ay leerlu leerlu yëpp moom jaru ko woon ndax Walf Quotidien li mu jàngat ci mbirum Juan Branco boobee mooy état bu Sénégal doole ak xarañte bi nga xamante ne moom lañ doon fësal yëpp mujj ak Branco fi état bu Sénégal di mujj ak Ousmane Sonko boo moyul mooy bañ a bokk ci élection présidentielle yi ndax réew mi quotidien dafa jàpp ni njiitu réew mi Macky Sall ba tey ma nga ŋànk ci contumax bi nga xamante ne bu ñu tënk woon ci yoon dëgg loole dañu koy teg ci suuf ndax jamono ji teg nañu loxo Ousmane Sonko waaye mu mel ni foofe la Macky Sall ak nguuram mooy ba tey ngir Ousmane Sonko bañ a nekk ab candidat ana kan mooy doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci élection bi l'observateur na ci anam yu yaa ci jafe yi nga xamante ne moom la njiitu mi Macky Sall am ngir amal ab tànneef yéenekaay bi di ñu xamal ni mbir yi am na ci sax ab ndëgg sërëx ndax li ñu duppee charte bu benn bokk yaakaar piège dëgg la rax ci dolli mën na am sax beneen mbir bi ci laxasu muy wàllub éthique ak ñàkk kóolute bi nga xamante ne mën naa am ci tànneef bi leneen li koy gën a méttil mooy diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xamante ne daanaka xeex bi tàmbale na ba noppi kàddug Lat Diop ci biir l'Observateur muy xam ne ni premier ministre di Amadou Ba ci boppam mooy tànneef bi gën laata ñuy xam sax kan la njiitu mi ci boppam di tànn Walf Quotidien lum ñu yëgal mooy ak lu mu mënti doon daal du génn parti bi di APR ndax moom Macky Sall ci boppam parti bi la jiital laata coalition bi beneenu parti PDS ñoom mën nañoo tàmbale waa waajal lii di présidentielle bi seen candidat di Karim Meïssa Wade les échos duñu xamal ni sumb na opération ñibbisi ndax jamono ji tàmbale naa waajal moom doomu njiitu réew ma woon tàmbale naa sax woote di yëglu ci kanamu ñi nga xamante ñoo nekkoon ay anciens ci PDS ngir parti bi bu ko defee ñu waajal seen bopp Yewwi mi waajaloon boppam ba fi ñu tallu booy moytul ci tas la jëm enquête yéenekaay samp na ci sax laa laaj ndax li ko waral yéenekaay bi jàpp ni diggante Pastef ak taxawu Sénégal laaleetuñu benn yoon CEDEAO mi fas yéene laale ak réewub Niger 24 heures dafa jàpp ni ay pexe dëgg moom la ñuy nas jamono ji gannaaw app bi jeex njiital CEDEAO di Bala Ahmed Tinubu woote ne beneen daje kon ngir wax kon ci nan la ñu fas yéene taxawee Niger moom taxaw na tembe ngir defante ceerom ba noppi liy raam nag ci ñag bala jëm te bu fa amee kër du baax moo tax Dakar Times jàpp ni luy pexe nekkul guerre waaye waxtaan ndax sumba ab xeex ci Niger musiba dëgg lay doon ngir Afrique musiba gi sénégalais di dund jamono ji mooy yokkute yenn ci njëgu dund yi nga xamante ne kon la Soleil yéene kay dikk na ci bu baax wax ci li nga xamante ne moom moo ko waral rawatina soble si soble si yokk ba jéggi dayoo waaye teg ko sax gët lu jafe la moo tax Sud Quotidien jàpp ni jamono ji